joxe ndigal li rek ci ak teewam ak guwuteem ci li bëgg rek te bàyyi ko fi mooy boole jaamu yàlla ak liggéey bi bu fi nekkee di leen bëggal nag dafa fekk mu war leen a bëggal rek waaye li nga xamante ne bii moo leen fi bàyyi te ci la war a nekk moo di jaamu yàlla ak liggéey faaw mu am nag ay sart ay condition li nga xam ne moom lañ bëgg ci yéen. li nga xam ne moom lañ bëgg ci yéen. ginnaaw liggéey bi ak jaamu yàlla. moo di ni nga xam ne nit ki noonu la war di melowoo di comportement mu di comportement. mu di comportement. faaw rek ñu euh, wut ci aw doxalin. faaw rek ñu wut ci aw doxalin. bi nga xam ne moo ciy jiitu. bi nga xam ne moo ciy jiitu. moom euh, ku fi sotti ku fi nekk te setoo rek. ku fi nekk te setoo rek. di war a jaaxal ñu bari. di nga war a jaaxal ñu bari. ndax ndox mu bari. ndax ndox mu bari mi. ñàkk a set moom. ñàkk a a am ci saayir. warta a am ci saayir. setu baatin gi itam. setu baatin gi itam. li sëriñ bi tere. li sëriñ bi tere rek. ngeen koy moytu. ngeen defee sant sëriñ bi bu dee dëgg. bu ko defee sant sëriñ bi bu dee dëgg. ci la seen lépp nekk. allah kulli xalin nag waxtu wu nekk nag faw faw ngeen di yeewu ngeen di genn wàllu waxtu lu jiitu fajar faw ngeen di yeewu genn wàllu waxtu lu jiitu ñu julli fajar min wi itam fu mu jote min wi itam fu mu jotee li ma maye fi nekkee ak suma ma fi nekkul bu fi nekkee ak bu nekkul su ma fi nekkee moom bu fi nekkee moom bu min wi xasee jot min wi xasee jot koo xam ne soxlawu ma la fii koo xam ne soxlawu la fii moom dutuma dégg coow dootul dégg coow bu min wi xasee jot bu min wi xasee jot loo xam ne soxla wu ko fi. bu ñu nekkul it. Euh, dana wax euh, Ousmane Ndiaye. jëwriñ dana wax Ousmane Ndiaye. moo fi nekkul su fi nekkul. itam fu mu nuy jotee. mooy contrôler ñëpp. ñëpp ndax cinq heures et demie du matin ñëpp dañuy yeewu. loolu la bëgg ñëpp bàyyi ko seen bopp. loolu la bëgg ñëpp bàyyi ko ci seen bopp. du càggee na nag ku ñëw ku ñëw fii itam du càggee na nag ku ñëw fii rek bokk ci kër gi bokk ci kër gi noo la neex nga fi nekk noo la neex nga nekkee du demee noonu du demee noonu lu ci nekk day tege ci yoon dafay bëgg ñëpp bàyyi ko xel bëgg ñëpp bàyyi ko xel te man tamit ñëpp leen di bàyyi te moom itam nag ñëpp mi ngi leen di bàyyi xel li ma leen di sant nag ci gan gi ngeen di xëy teeru di sant nag ci gan gii ngeen di xëy teeru ji def ci li ngeen nekk ci donc minute yi ngeen fay am li ngeen doon nekk ci ngeen fay nekk minute yi ngeen fay am li ngeen doon nekkee fii ngeen fay nekkee li ci kaw li ci kaw zaahir si zaahir si ngir ñoom la ngir ñoom la waaye baatin bi ngir ñun la waaye baatin bi nag ngir ñun la ca kanam la nekk te ñun yàkkamti wuñu ca loolu ca kanam la nekk te ñun yàkkamti wuñu moo tax ku fa teewit moo tax ku fa teewit jàppal ne rek Modou Kara ngay teeru jàppal ne rek moom mii ngay teeru bu ko defee ngeen fexe rek wax na ko jawriñ ñëpp teel faa teew. bu ko defee murid ma lay waroon waroon a dem soowu sax. nga xam ko jógee moom bu guddee da koy ñaanal. nga xam bu jógee foofa rek jàll. ngir ngir yi muy toppatoo ji mu jëm ci tant gi. benn naa dafa tàng nag. ngeen dem noppali ji jërë ngeen jëf ba kër gi sedd jërë ngeen jëf te yàlla te yàlla Cheikh Mouhamed al Islam Mbacké nooree nii Mbacké te yàlla merci Mbacké merci borom Lansar tey kii bay moj. borom Lansar tey kii bay moj. borom loo xam si cant gi. billaahi bàyyi cant gi daal bàyyi. amul di ko baa muy dem rek. ñu xam ne sëriñ tam sëriñ Tuubaa di seen jamono. cap sëriñ Tuubaa di seen jamono moom ndaw ñi ndaw ñëpp ñu jërëjëf Cheikh Modou Karam Mbacké foofu rek laa yem wax dëgg yàlla. jërëjëf Cheikh Ahmadou Karam